macam lakon dama dem di bandi bandi la naan su ma eggee damay wax lii damay wax lii moo def de mbata suppul bi neex na ku ñu jàpp kan la ñuy man maa def nii sama téléphone di jaay waane ma wan maa ci nekk moo ah porté plainte ñoo may jël si. ah noo gisee supp bi. neex na ndeysaan massa. jaam bu tubaabe laa am ndeysaan di ñëw tegle ay tànkam yaa ngi dégg ah. lii ah, xool ma kanam bi rafet la def teint noir bii nii xool seetu bi <laughs> ëpp na. maa ngi wax gis <laughs> rafet nga. lan na supp bi am na lan. na coflaay. coflaay mooy lan moom. bi mu fekk nii. massa massa massa massa ma teg na tegaat naa fa palaan tànk ba coflaay gaal. waaw jëlatuma la léegi sama bopp laay jël dégg nga. Ah. <laughs> ma dolli ko ah? loxo bi saf na <laughs> foog ma ci gis na fu ma jële jël ma fa nag fu ma jële jële la <laughs> c'est que moom bi muy jóge si kër gi da doon bànni bànni naan su ma eggee damay wax lii damay wax lii ñu koy naan waa demal jaam day day yëngatu mu ñëw toog ah, foo ko foo ma jële jële ko fa de ah jël naa ko kay moom moom kay. preuve preuve lay am ni <laughs> da ngay dem takkal moom. Eh, ah? non des na il faut ñaan. am bi am yow. am ah, doo lekk. Ah, bañ ku la moo tax nga delloo bool bi yow laa bëgg a defaral lu neex. ay ma daa de de bay bye bye bye dama bye. wax ni nga ñëw sa nga ñëw stage ba ana yow ana équipe bi équipe yow suppal sa jeeg bee ma saf ci li sa jeeg bee ma saf waaye yaay ay ki la teeral ba nga teer ko defee léew suppi bi xam nga day neex am na am na yel ba ñor ba dee lii la mu yéen du yaa fi dikkoon démb dër si tey xanaa dégg nga waaye su pee dafa saf e su pee su pee dafa saf ku mel ni sumbulu ku ko la bëgg ki la ebe la coppati loo ko defal dana saf lii la def. dëgg la sëyal sëyal ba mu neex la sa njëkk yàlla ebe. am na. non yow moom tey sa sa lan yi. bii sa sa ñu lay ñor yi ah. ah rek. tranquillement rek. ah bisu. ah. bool Diop la sant di lekk nga bool bi yëpp. ki ko togg ko nag lu mu njëkkee. non man lekkuma. ah a ñu man dama indi ba ngeen lekk ba pare. yow bi ñu wàccee bool bi ñu wàccee bool bi ci oto bi ci yàlla xam nañ lépp mënu ko doon indi ba pare moom day suturaalante lépp sutura suuf bi yëpp laa ko lekk yaa njëkk a lekk sa madam waaw loolu dëgg la waaw waaye ki nga wàcce rek te toog ko indi laalu ma ko ba heure commencé toog bi seize heures ba vingt heures ba vingt une heures waaw yeel la yeel boobu suuf kay fi mu jaar sori na déedéet yeel a yéex a ñor yéex a ñor ngoon ngoon daa wax ngoon